bi euh, décision conseil constitutionnel euh, bi mu jël gannaaw bi ko njiitu réew mi jébbalee li nga xam ne mooy proposition yi ñu defoon ci dialogue national bi euh, conseil constitutionnel daal di jël décision ngir dàq loolee yëpp ba fexe daal ba ñu jàpp date présidentielle bi muy le 24 mars daañu ko waxtaanee si jotaay bi waxtaanee également ci lu jëm ci campagne électorale bi coalition Diomaye président ndax kenn ci ñoom lañu dalal waaye itam yeneen fànn yi nga xam ne euh, dina soxal lool askan wi euh, te nekk ci cadre euh, présidentiel bi. imam al amin imam El Hadji Malick Dramé moom la ñuy dalal beneen mbokkam laa tudd. am mbégte lool sekk ak moom jotaay bi imam ñu ngi lay dalal kon ci Sénégal 7 am mbégte toogaat ak yow aouzu billahi min asheytaani rajim mhm. bismillahi arrahmani arrahim laa xawla wala quwata illa billahi alali alazim mhm. uh, asalaamualeykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah Abdou Khadre maa ngi lay nuyu mhm. di nuyu mboolem sénégalais yi ñuy topp ci Sénégal set di nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu nag sama mbokki patriote yëpp maa ngi leen di nuyu mhm. waaye di beral nuyoo nag sëriñ daara yi ak imaam yi mhm. di nuyu waa Modab maa ngi jiital ci nuyoo bi le président Cheikh Tayrou Fall mhm. ak membre yi Modab yëpp yi nekk ci quarante cinq département yi nekk ci réew mi di nuyu sunu coordinateur Cheikh Omar Bamba Diop dinañ ci ñëw maa ngi koy rendre hommage. Mhm. di am te lool ci bokk ak moom liggéey bi parce que xam nga ni semaine bii lañ ko libéré. mu yàlla natt ko mu bokk ci ñi nga xam dañ leen a tegoon loxo mu mu nekk sëriñ daara. Mhm. nekk jàngalekat. nekk ko ñu ràññee ci yoonu murit mhm. rawatina fële ca Daaru Moxti waaye bi natt bi ñëwee mu mu dégg ko ak dignité mhm. kon Cheikh Omar ñu ngi lay wax ni soyez les bienvenus ñëwal ci say frère waaye li nga xam ne mën nañ koo tiitaroo ci moom daal mooy dafa wane dignité ci mbir mi mhm. semaine bi dem na Daaru motti ñu teeru ko mu nekk lu rëy ci ñun ñëpp nga xam ni sac la parce que combat bi ñu nekk mhm. du combat benn nit comme baawu génération la. kenn ku ci ne da am rek rôle boo ci joué waaye moom mu bokk ci ñi nga xam ne dañ cee joué rôle bu am solo. ni ma ko nuyoo noonu laay nuyoo ku mel ni Oustaz Assane nga xam ne moom it ci waar wi la nekkoon gannaaw yàlla man mii maa ko dalal ma dab. yaakaar naa semaine bi mu ñëw sama kër ñu toog waxtaan échanger teguñu ci ay ayubés ñu jàpp moom it am nañ yaakaar ni génn na ñu ngi koy rendre hommage di rendre hommage mbooleem sëriñ daara yi ñu jàpp parce que xeex bi tamit sëriñ daar yi ñu ci jàpp bari na. Mhm. ak nitu diine yi bugguma lim mais ñooñu su ma leen limee rek dinañ yóbbaale ñëpp géew. Mhm. waaw di nuyu membre yi Modap yëpp. waaye nag di beral nuyoo suñu leader le président Ousmane Sonko nga xam ni moom moo tax tey ñuy dugg ñun ci politique waaye di beral nuyoo tamit suñu candidat le président. Bassirou Diomaye fay le futur président du Sénégal. Mhm. di Sénégal yëpp nag. d' accord wax ni ñu fas yéene waxtaan ak réew mi comme ni ko daan defee. <laughs> d' accord euh, réew moomu ñuy waxtaanee sax euh, effectivement euh, ci la ñuy tàmbalee waaye balaa ñuy dugg ci li nga xam ne moo gën a récent ci actualité bi imam am na ay fan yu weesu man ak yow defoon nañu benn émission mm-hmm. émission boo xam ne xawoon na indi réeroo yow ak sa diggante. ak ña nga àndal ci biir mm. Pastef ba ci biir Modap mm. euh, nga génnoon dal di euh, xamal leen ni lépp loo xam ne dafa naroon nala gàllankoor projet bi mm. doo ci dox mm-hmm. li la soxaloon mooy seen leader bi nga tudd sànq mm-hmm. muy le président suman Sonko mm-hmm. génnam moo la soxaloon génnam boobu dinañ ci ñëw tout à l'heure waaye da nga ñëw ñu jël décision nga dellu ci ginnaaw daal di leen xamal ne foo leen féete falaay féete hmm. malgré sama bëgg-bëgg bi ma waxoon hmm. ngir suñu président Ousmane Sonko seen président Ousmane Sonko hmm. tey lan moo waral décision boobu nga jëloon ko jotoon nga def sorti mais tey pour gën ko yaatal waaw ngir gën a dalal seen xel ndax indi woon na réeroo lan moo ko waral xam nga nag ñun yonent bi salaay sallam mooy suñu référence mm-hmm. te ku yonent bi nekk sa référence nag nga jël décision mbooloo mi dégguñu fi ngay waxee wala même bu dee dégg nañ fi ngay waxee d'accorduñu ak yow mhm. nga wëlbatiku ànd ak mbooloo mi ci koo xam ni référence bi ngay jël ci yonent bi nga koy jëlee warul bett kenn mhm. parce que yonentu saay sallam bu dee modestie mhm. képp génne ci école am war nga am loo ci am humilité ku woyof humilité loolu du warul nekk événement parce que nag ñun alhamdulilah rabbil alamin ay nitu daara lañ baat boobu ñuy wax rëy mhm. tarbiya bi ñu am ñun tarbiya bi ñu am nga xam ne dañoo am juróomi at ñu jox ñu pot ñuy yalwaan ci mbedd mhm. te bi ñuy nekk ci mbedd mi di yalwaan di wut lu ñu dundee suñ bàyyi ñu ngi dundal ay kil ay ay nit ñu baree bari seen biir kër mhm. ngay toog ci daara ji presque yow fukki fan doo sangu loolu bañ koy def ci yow li liñ ci jublu woon mooy ñu fexe ba doo rëy. maanaam toj sa xol. toj sa xol ñun amuñu problème boobu. Mm-hmm. ñun dañ ñuy convaincre rek boo ñu convaincre rek ñu bàyyi. Mm-hmm. te Abdou Khadir man damay santaat yàlla bu baax ci li li fi jaar. Mm-hmm. parce que nit fii yaa ngi nekk ci ci jàmm rek doo xàmme dayo bi nga am ci pénc mi. waaw parce que yow yàgg nañoo toog fii wax effectivement man ak yow ci moment yi gënoon a jafe nit ñi di la tàccu di la apprécier. Mm-hmm. léegi nag ñi la daan tàccu di la apprécier bu ñëwee ni la d'accorduma ak yow boo bu dee nit nga. Mm. dangay ngay wëlbatiku laaj lan moo tax ñu ni d'accorduñu ak yow. Mm-hmm. li tax ñu ni d'accorduñu ak yow nga dem corriger ko. loolu la ñun ñun loolu lañ lañ nàmp ci yonent bi ñun moo tax amuñ affaire bi dafa oyof ci ñun. Mhm. Mhm. parce que man sama doom bi bu ndaw bi nga xam ni sax samam caat la. Mhm. su ma convaincre ma topp kon li ma bëgg a wax rek mooy ñun duñ ay politiciens ñun ay nitu diine lañ. ñun lépp lu ñuy def dañ koy teg ci ay ci texte alquran wala ci hadis wala ci njàngale mag ñi. te yonent salaay sallam mi nga xam ne mooy sunu référence. daan na jël décision alxuraan wàcc Seydina Omar maam yontu bi jël position Seydina Omar jël position te yontu moo tax ñu bind jaabi Seydina Omar alxuraan wàcc ànd ak moom yontu bi fekk si ko. Mhm. kon loolu moom warul nekk événement ci ku xam nitu daara. Mhm. waaye ci ku xam nitu daara it xam ni lépp lu mu wax lu mu gëm la. nit nag mën ngaa wax li nga gëm penc mi du ci ànd du jàggin ay pression parce que nit alxuraan mënul nekk ci sa dënn ngay ragal pression wala ngay ragal coow nit mënoo alxuraan nekk sa dënn ñu tafsiral la ko coow tax ngay dellu ginnaaw déedéet pression du tax coow du tax wéet ci sa xalaat tamit taxul waaye li ñu yonent bi jàngal mooy aljamaatu rahma wal furqatu azab mhm. mooy mbooloo ci la yërmande nekk yë mbooloo ci la yërmande nekk. d'accord mais bii loolu amee. te bu ngeen tàqali ko mbugal la. moo tax yow boo demee ba gis ni yow sa position li ëpp ci mbooloo mi d'accorduñ ci. Mm-hmm. da ngay dellu si waat fekk ci mbooloo mi mu fekk nag. man nature bi ma yàlla bindee bu asamaan si daanuwul li ma xalaat dinaa ko wax loolu sama nature la xalaat bi ma am noonu du man kese maa ko amoon de. Mm. dégg naa démb sëñ Cheikh Thioro Mbacke honorable maa ngi koy nuyu. sama xarit parce que nit bala ngaa xam sa xarit nga nekk ci jafe-jafe. Mm-hmm. bi ma gaa yi songee te ma kontaan ci song biñ ma song barki Cheikhu Tidiane xam nga lu tax. Mm-hmm. mooy man man man damay man damay songaate ñaata nit laa fi song kon man buñ ma songee amul warul indi problème. Mm-hmm. parce que milieu bi moo laaj songante. ci politique lañ ne. waaw ci politique lañ ne politique ak coow ak wuute xalaat ñoo ànd. Mhm. exemple Ousmane Sonko mi ñaata yoon lañ ko song tey am na ndab mhm. moo tax ko koo gis mu ragal coow amul conviction ini intellectuel du ragal wax alxuraan daf ñuy wax ni wala yaxaafuuna lawmata laa'imin waaw maanaam yàlla du ragal maanaam ku ragal ku lay képp koo xam da ngaa ragal ku lay yedd. waaw ah, demagoo ci yàlla. yonent sax bu ko yàlla di yónni li mu koy njëkk a wax mooy nit ñi bu ragal ñu yedd la kon dama bëgg wax ni rek nit ñi kenn mënul mucc ci ñoom parce que nit ñi di la tàccu tey ah du ñëpp mais am na ci ñoo xam boo juumee ñoo lay saaga waaye nit fi ak àggoo ci ñu lay saaga nga yemale ñu lay saaga ak ñu lay tàccu nekk góor leader. d' accord taxawaayu euh, honorable député. waaw ah. euh, loolu dafa baax ñu xam ko Cheikh Thioro Mbacké ah. maanaam dinaa ñëw Cheikh Thioro mais gis nga leader dëgg. Mhm. dafa war a yemale. nit ñi di ko tàccu ak ñu di ko. critiquer critiquer. Mhm. te loolu mën naa cee jël benn jàngale bu Cheikh Seydi Hadji Malick jàngale. oui Cheikh Seydi Hadji Malick man dafa bokk ci samay référence ma bokk ci école am. Mhm. di ko tiitaroo. dafa am mag mu ñuy wax Ëmën Mbay Maodo. moom mooy waajur ci mën Mansour mbay mii nga gis Aman mbay Maodo day sottil Seydi Hadji Malick ndox muy jàpp li mhm. mu koy sottil ndox muy jàpp am benn nit jënn jëmm ju romb Aman Mbaye Maodo ni Seydi Hadji Malick ni ko Maodo mu ni ko làbbayk mu ni ko diw de ku baax la mhm. mu ni ko diw baax na de mu ni ko Seydi Hadji Malick waxam bariwul woon mu tànqam lu ko ba muy ñetti yoon mu ne ko Amadou Ba xam nga lan mooy mbaax hmm. mu ne ko si lan mooy mbaax mu ne ko mbaax mooy nit fekk la fi nga toog yëkkati ci wër wërsëgam jox la nga kontaan nga gersu dem mu mu mu gersu dem bay dem ku dóor la mbéj nga yemale xaalis bi mu la jox ak mbéj mi fii ak àggagoo foofu fii ak nit àggagul foofu nit kooku mënoo guñu wax ni ku baax la hmm. moo tax tasawuf dëgg bu dee ni tarbiya na la bari na yu tënk nit ñi du la tënk mhm. waaw parce que sufyanke dañuy wax ni man zanna annahu xayrun min al kalbi fal kalbu xayrun minhu mhm. ku njort ni yow yaa gën xaj xajal a gën xam nga nag ki àgg ci niveau boobu mu jël décision penc mi ni d'accord ci pour mu war a dellusiwaat décision warul indi événement d'accord ñun ay nitu daara lañ loolu dafa war a oyof te loolu dañ koy jëf pour jàngal yeneen leçon politiciens yi gëm ni nit da ngay am humilité gëm ni nit nga da ngay juum donte léeg-léeg yow di nga am ay information yoo xam ni opinion bi duñ ko am mais est-ce que nit ñi yuuxu la war naa tax nga bañ koo wax mm-hmm. te nag xalaat bi ma am nii man maa am fitu wax ko de mais ñu ko amoon bari na au sein de Pastef au sein de Pastef sëñ Cheikh Thioro Mbacke déglu naa ko tey mu wax ko ni bi ñu demee ci dialogue bi. Mhm. au sein de Pastef bari na ñi ay leaders yoo xam dañoo amul dañoo gëmoon ni dañoo war a dem ci dialogue bi te man xam naa ci dara. parce que man man ci au sommet. parti bi ñu ko ŋànk ñëpp laay waxal. loolu la mhm. yàlla dogal. mais finalement jurul dara de. mais loolu dialogue boobu noonu. non dama la bëgg a wax rek ni la Pastef du parti boo xam ni pensée unique la Pastef dafa dajale ay écoles yu bari. Mhm. dajale ay intellectuels yu wuute. ku nekk sa xalaat ngay wax bu ñu la minorité buñ la minoriser nga bàyyi sa xalaat dem fekki majorité bi moom la la sëñ Cheikh Thioro wax déglu naa ko ak ay dara tey mu wax koy wax. Mhm. maanaam loolu warul jur événement. mais loolu est-ce yi au plus bas de l'échelle ñoom yëg nañ loolu. waaw amee militant nag xam nga ñun nag waruñu militants yi wax dëgg yàlla ñoom ñoo tax ñuy sonn. Mhm. waaye nag leader niveau bi mu war a am ak niveau militan du benn. ah waaw mais war nañ leen mën a imprégner looloo am looloo tax euh, école du parti am solo. est-ce que Pastef am na ko. waaw Pastef xam nga Pastef sax boo xoolee. Mhm. maa ngi ciy profité du nuyu ku mel ni Moustapha Sarré moo ko yor. effectivement Pastef wax dëgg yàlla loo mën a wax démocratie am na fa. mu ngi dund école du parti bi. waa xam nga ñun Pastef li ñu xaw a sonal mooy xeex bii ñu Macky Sall dugal. man mhm. naa des années ñu ñu nekk ci. waaye ku ku xool parti bi ni mu bindoo. Mhm. nga xam da nga fay gis mouvement des doomu daara. mouvement des handicaps. Mhm. mouvement des cadres. foofu Sénégal moo fa daje. mouvement des femmes. mouvement des femmes. Mhm. léegi nag mu des ku ne boo. ñëwee des jeunes. des jeunes ku ne boo ñëwee yow sa formation nga indi. Mhm. waaye ñun benn chance la ñu ëppalee ñëpp mooy dañoo am ay leaders. parce que lenn rek la ëppalee yeneen parti ah. moo wax la ko mooy dañoo am leader bu mat leader. parce que man bokk na ci li ma gën a marqué ci Ousmane Sonko mooy dafa gëm xalaatu nit. léeg-léeg bu ngeen di waxtaan danaan la imam convaincre ma bu d'accordul jéem maa convaincre même Ousmane dañ koy minoriser au sein du parti ah moo tax ñun yooyu miin nañ ko loolu de loolu lu baax la gis nga débat intellectuel dafa baax ñu wane ni Pastef tey jël na décision mhm. am na ku nekk biir Pastef jël beneen décision xam nga lu muy wane day wane ni parti bi am na démocratie c'est moo tax moo tax bi ñu génnee seen communiqué bi dama cee kontaan mhm. parce que man am na lu ma xëy na message moo bëggoon a jàllale wane ni ñun kat pensée unique biñ ñuy jiiñ du dëgg. Mm-hmm. est-ce que xam nga fi may wax. wane na loolu effectivement parce que man maa ngi nii jëloon pause te teewul ba tey ji ndomba tànk yi ma yoroon ci parti bi tey lañ ma gën a jox. muy porte parole bi. waaw dañ maa recadré rek ne ma imaam nekkoo ci dëggaa ah, ñëwal. Mm-hmm. ma nangu man tamit am humilité fekk si waat leen. ñu continuer combat bi. d'accord moo tax loolu bu ci nit def bu ci nit ñi def problème. Mm-hmm. man duma ko xeex ba mu des ñetti fan ma bokk ci ñi koy yàq mënul nekk. ñu bëri tuumaloon nañu la ci ne euh, imam boo demee jot na gis njiitu réew Macky Sall ba tax mu bëgg a lëndëmal euh, xel yi muy ñëw di ñu wax ne dañu war a dem ci dialogue te moom xam na ne parti bi d'accord ñu pour dem ci ay dialogue. Eh, Abdou Khadre yow da nga imaam imam. ba pare ni war naa gis njiitu réew mi. Mhm. loolu du événement. ci ko xam réew mi laa. Mhm. man damaa mos a nëbb ni damay gis njiitu réew. liñ li ñu doon ragal foofu mooy mooy mbirum ger par exemple. waaw parce que ñooñu xamuñu imaam. Mhm. yow gëm nga ni man discours bi ma am ni discours ku ñuy la. man de gëwuma ko. man de gëm naa ñeneen ñi xam ne xalaat war na mën nekk. bu fekkoon ne am naa prix. oui barke Cheikhou Tidiane Pastef duñ jot ci man. loolu bugguma di ko wax débat bu passé la. Mhm. mais man awma prix Abdou Khadir parce que man discours bi ma am ku ma xam-xam ni mënuma nekk ku ñuy noppiloo wala ku ñuy contrôler mhm. wala ku ñuy ger d'accord yaa ngi dégg xanaa mhm. ku ñuy ger day fekk yow loolu sax gaw ma ni ma ni patriote yi xalaat nañ ko parce que moment yi ma yi yi ñu dund ñun mhm. ak man ku xam sama proxi man awma limite ci réew mi ñëpp laay waxal loolu fexe naa ba am ci sama liberté sama leader di président Ousmane Sonko nangul ma ko man moment yi may jóge fii di seeti sëñ Mountakha ci moment wu crise bi amul benn membre Pastef bu ko yëg hmm. bu dee am na kenn ku ko yëg président Ousmane Sonko ak yeneen ak yeneen yoo xam dama koy doxi ba mu sotti soog ko ko rendre compte moom. te lépp luy defar parce ñun dañoo nangu ni ñun ñun suñu rôle mooy ay ñun ay nitu diine lañu. Mhm. en dehors politique nag ay nitu diine lañu. yaa ngi dégg te nitu diine li ñuy xaar ci yow nag mooy moment bi bu mettee nga jël sa ay responsabilité mhm. ci dëgg ci dëgg. barke Cheikhou Tidiane man li ma lay wax ni su ma demoon ci dialogue bi. dinaa fa tenir discours boo xam ne ba yowmal xiyaam réew mi bu ñuy bindaat histoire réew mi dañ koy bindaat te exemple laa lay jox eglise bi. pour pourtant discours bi ñu fa tenir ñëpp a koy tàccu. te yow xam nga ni kooku ëpp ma courage. Mhm. moo tax débat boobu bugguma ñu taxawaalu ci passé na. d'accord mais lu nit man dama ci li am ni dama cee kontaan. wane ni ñun ay nitu daara lañ te nit ñu oyof lañ ay taalibe lañ. mënuñoo mhm. rëy. di félicité nag bu baax la porte-parole di parti mooy maître Tall parce que gis naa bi coow li bare génn na soutenir ma soutenir ma seedeel ma li ma def man ku may seedeel li ma def nga may seedeel parce que man nag nëbbatuuma bi may xeex man xeex bi ba muy tar gaa yi ni kenn du wax ci réew mi ci laa ni kenn nit mënu maa tere wax ci réew mi kon duma bàyyi ba xeex bi jeex <laughs> xeex bi jeex na Abdou Khadre ni nga koy waxee ginaaru kenn nenu la non Abdou Khadre xeex bi jeex na xeex bi fi mu gënoon a méttee romb nañ ko d'accord mooy bi ñuy traqué nga xam da génn sa kër police taxaw uh-huh. barke Cheikhou Tidiane génn naa ba tey sama buntu kër ay élément police taxaw di ma topp guddi uh-huh. ma dem wal fajiri def émission retourné waat ñibbi du ma ànd ak garde corps parce que loolu combat de principe la woon uh-huh. yaa ngi dégg bugguma di ko wax nit mënta wax boppam dara mënuñu fëkk. d'accord alors. Euh, ci loolu lu ñuy gën di dem. Mhm. histoire di ko gën a wane. politique na ku ragal coow bu ko def. politique ak coow ñoo ànd. Mhm. yaa ngi dégg loolu bu ma ciy wax damay nekk ci xaal parce que ñun léeg-léeg gars yi dañ naan imaam ñuy force sa maam man forcer ma kenn sama maam. da ngaa xam sa bopp rek damaa xam sama bopp. man arafa nafsuhu uh-huh. faqat arafa rabbuhu. réel boobu yonent bee ko wax. leer na nit boo xamee sa bopp rek xam yàlla. très bien te nit bu xamee boppam. Uh-huh. day xam ni amul prix. Uh-huh. ñun liñ doon xeex ah mooy réew mi moom boppam te loolu ba yow yowmal qiyaam ci lañ fa seenee nekk. très bien je pense que je pense que que leer na loolu nga xam ne nag ci la réew mi. war a nekk maa ngi félicité waat bu baax. oui yi xam nga lu tax. Mm-hmm. woo nañ ma fu nekk ci àdduna ci cinq continents yëpp. ñii jaaxle ñii ñeen ñenn ñi ñaan ma parce que man dama am proximité ak base bi ah ma wax la loolu man sama numéro téléphone ñëpp a ko yor. moo tax man ku ma soxla ku ma woo ma jël la léeg-léeg nga déglu nit mu xaw ma ne ko sëñ bi nañ toog tuuti rek bu dee li ma wax dangeen ngeen a jàpp nii dafa yàq man dinaa tëj porte boobu man li yàq porte projet bi mënul jóge ci man. Mhm. loolu. bugguma waxuma ko nii pour sow mais loolooy dëgg ci man yaa ngi dégg waaw parce que projet bi dafa am ñu ci faatu ay bakkan da cee rot mhm. am ñu ci ñàkk seen bakkan am ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen liggéey yaa ngi dégg kon ñun amuñu droit def ci erreur. am ñu si ñàkk seen cër. am ñu ñàkk seen i cër dinañ ci ñëw. Mhm. ah ñu nekkoon ñu nekkandoo ceeg suñuy naw la ñu jàpp leen. yaa ngi dégg yow nga dem ba incarné nekk bokk ci personne morale yi. Mhm. mënoo lu dul bokk ci ñuy defar. d'accord waaw. d'accord loolu dama ci dalal xelu nit ñi. Mhm. que ni page boobu tourné nañ ko ñun page bi ñu jëm mooy battre campagne ak Bassirou Diomaye Faye. Mhm. jël Ousmane ko mu nekk suñu directeur campagne lii nag sama xalaat la ñu gagné élection yi premier tour. très bien Imam Dramé ci lii la nekk. très bien leneen lu la waay wax. oui waxi boppam la. très bien dinañ dinañ dinañ ci ñëw dinañ ñëw particulièrement sur le.